ah asalaamaaleykum asalaamaaleykum alnimbara alnimbara ah bii nag waa UDP ñoo ko moom altol UDP kool altol le taamu ñinti eh, maa ngi leen a sant di leen gërëm di leen nuyu fu nuyu mun a em waaw ak fu nuyu mun a sellee rek because lu tax may def vidéo bi mooy dëgg UDP moo nekk di biggest party UDP um, ñoo nekk ñu nga xam ne ñoo gën am opportunity pour mun a génne Adama Barrow fii ak government parce que euh, waxuma ne Adama Barrow dafa bonde euh, maa ngi koy ñaanal jaama moom si boppam sax ndax su amee jaama ñun ñu am jaama waaye fi maa waxee mooy euh, suñ seetee liy xew Sénégal mooy ne gars yi bi Ousmane Sonko demee ba gis ne Kale moom du mun a am opportunité pour taxaw dafa joxe jox koo xam ne foog naa 1980 la juddu xaw ma I think so eh, jox koo xam ne moo ko gën a yong tamit waaye mu am kóolute si moom mu am yaakaar si moom understand nga believe ne liñ teg projet la so foofu laa bëgg a ñëw waxee ma bëgg nag waa UDP ngeen déglu ma bu baax ak xel. waaw parce que xam naa ñu bëri bëggoon nañ leen a wax lii waaye dañ dee ragal ngeen dal seen kaw parce que dafa am ñoo xam ne éléments yoo xam ne ñu ngi biir UDP loo wax rek te àndut ñoom liñ gëm dañoo dal sa kaw man nag man dama ragalut loolu parce que ñun Gambia du UDP moo ko moom dañ ci bokk em ñun ñëpp waaw waaye UDP dañ am opportunité boo xam ne fuñ jaar ñoom ñu yëngal seen bopp bi ndax ñu bëri xam ne opportunité bi opportunité bi eh, opportunité bu mag la mooy ne. et eh, UDP foog naa léegi ñu ngi si thirty years bu ñu amee léegi si three decades eh, waxtu bi jot na nag fu mu nekk nii pour ñu def changement xam nga ni dafa wax ne eh, bokkuloo ci parti bi nii ak yooyu noonu waaye man ci Gambian la gisee suma boppa waxtu bi dafa jot ñu d'accord ne dañ am changes dafa war a am ndax dëkk affaire bi mun a dem. ñu bëri dañ jàppee UDP as parti boo xam ne parti xeet la soosey ñoo ko moom soosey ñoo fa ëppa soosey ñoo lii soo soosey ñoo lale man nag gisee wu ma noonu waaye dama gis opportunité boo xam ne dafaa tax UDP am am ñëpp ñëw ñëpp ñëw fekk si leen eh, te loolu mooy eh, ngeen jël taalib jiital ko parce que lu tax ma ne taalib Yankuba eh, Yanks I like that guy I really like him because he's consistent uh, I, believe in him waaye kii uh, Taalib daf ko njëkk a fekk si uh, uh, si daf ko njëkk liggéey ci ci ci ci KMC njëkk a koo liggéey as meew ñu gis li Taalib def gis ci lim nekk li def man Taalib is not my friend am not UDP e waaye gam am dama dama believe ne suñ jëlee opportunité boobu noonu jox ko Taalib Yankuba ñëw Rohim Malick loo ñëw Essa mbay Fall ñëw Eh, kii eh, waa ji kii waay naka tuddaati eh, alaaji kii ki demoon ci fii demoon bokki doy waaw ak xam nga am nañ ay youth ay ñu yong ñoo xam ne ñu vibrant ñoo xam ne suñ bokkee rek dañoo am li Pastef am te dañ ko am already sax waaw dañ ko am already sonko sonko mooy taalib ñun foofu foofu foofu la affaire bi sonko mooy taalib waaw yankuba mooy jomaay Essa Mbaye Faye Essa Mbaye Fall mooy jomaay yooyu yëpp dañ ko fa am you soo buñ war buñ waruñoo waratuñoo toog sa di seet naan ñi UDP lañ ñuy lii lañ xam nga liggéey bi dafa war a jot you know 2021 si lañ rey ay 15 xalel ci affaire politique yi Sénégal and that is three years before seen election bi you know so this I think that it is the right time pour pour pour something commencer to happen si society politique bi right now you know because xam ngeen jigéen ñi Costaroot yi yéen a gis ñu ngi foga seen paan yi naan dañ soona dañ soona loolu rek moom mu ñoo fàttali Calabas révolution bi yéen a ngi fàttali ko you bi jigéen ñi takkee seen li fi ni seen mbaatu yi ak seen bale yi dem fale Banjul si kootukaay bi you soo opportunité loo xam ne opposition bi dañ war a eewu understand nga waaw Lawyer Darboe nag moom dafa mag wax dëgg yàlla dafa mag UDP na loolu ngeen bañ a dégg gis nga nit ki ah am na foo xam ne rek su ngeen fa tooloo dëgg rek mooy ñëw waaw ñun we all believe ne Lawyer Darboe dafa contribute waaye nag Halifa Sallah bi mu demee ba gis ne def na li mu war a def si si si liggéey bi mu war a def Gambia winut nekkut président waaye liggéey bi mu def liggéey bu rëy la def understand ngeen mu ne moon bokkatuma joxe naa waaw te loolu nag loolu Lawyer Darboe su ko defut yéen yéen a ko ko war a defloo ne ko baaba ñun ñoo la pension ngir la ak yonent bi you know because baaba dëgg dëgg mag la su ko defee taalib mun a commencé liggéey bi xam nga man nag lii nii naa li am baaneng <laughs> a bee kiliŋ you know man nag woorewuma su ma saagende ñinnu saafoonu ko saafoonu man ni ko kawtu fana bari euh, comme nga dati ko surwa <laughs> kamala so so fanga domandim fodron man ni ko kamala pour al pour al sa lonko pour Gambia, Gambia bemo si cleannete you know. Because ntolla problema politiko to si fatan ya jama le ba kono. Andun amanyan na keko nyama. You know. So nyanta min kela dron ngake pastef ya ke nyame. Kabirin eh, Usman Sonko ya jeko ate man ta ate talano. Aya di joma ya dron joma mu dindingol tingamir awul awuluta uh, eh, 1980 leban. You know. So pour nga kata na Gambia jibe you know pour gambia jibe kana fendo jibe because senegal sol ni alje senegal sol ni senegal mi eh, senegalais mit europe ta fay ko ite ite mun ka fol ko ntemu senegalais lu abanta abu ka fuko ntemu ta kiyan ntemu kiyan kalon ntemu jaran kalon ntemu nyen no akati ka fol dron comme ntemu senegalais le abanta ntol gambianol wo landila karala ngami jiiɓe ganti fan jiiɓe ga toña lanɗe toña wolem ko baba baba udp ntolla baba a keɓayatale sani alino koma moyre baba keɓayatale sani talib ɓe jeyle talib mo cocktail leɗe talib cocktail la talib sose la joola la naar la manjagor la yëpp la everything ah talib is the real gambian you know nteɓanke udp rel bari ntegaje ñamin ba nendiro wo man lafi wola you know so ntegaje ñamin mba fola wala ñawa ñantaka Gambia jibi sañi nimman woke UDP nene la UDP damma damma damma damma te nene la te nene man sabondi la jam you fo nga kata nga Gambia jibi nga talib landi ñaato e sa bay fal ñol ye na e daabo na boyo e ye na fenke fanan rohi malik ye na alye e docteur mamadou kouran dem bang doy ati fanan ye na nene gomes ye na Eh, MC Cham Junior hena you know gol be hena ngake kankelinti nana banko sambañaata ntere ntebe europe jan temmete janne natan temmete jam bakel nga sanji tanni tan sabanin lulle ke jam soo na dingol be wuluta janne you know nte lafta tala tamala dula o dula ñin ñin dunia ko nung tetanos without visa fam you know so nga la tentu bakel bari i wuluta dami ah fu nga judo fofu daf la de dafa la dee dugga non soo may ñaan nag ñaal daane te la ñu tray ñu commencé campagne bi léegi ñun ñëpp ñu commencé campagne bi léegi léegi léegi léegi léegi léegi Lawyer Darboe bés bu ñu jëlee lifin bi ah moom mun naa nekk senior euh, presidential adviser waaye nag waxtu bi dafa jot ñu teg yëpp aside ñu am li Pastef am you know ñu puus ñu am agenda suñ amee suñ amee liñ bëgg a teg ñu wax ko nit ñi ne leen lii mooy suñ programme you programme bi mooy li fii UDP amu fi dara amu fi Gambia moo fi am you ñu am benn coalition bu baax ñu teg ko ñu liggéey you know léegi léegi léegi ñu commencé campagne bi waaw ñun ñëpp ñu def si suñ suñ suñ suñ doole you so loolu loolu foog naa ne loolu moo mun a yó mun a yóbbu réew bi kanam waaw affaire bi nag maa ngi am ay calls waaye asalaamaaleykum wa rahmatullah